juróom ñaari téeméeri parcelle yi ñu mën a dëkk ànd ak titre foncier fële ca Bambilor ñoom la ñuy joxe tey ci suba mu di nag initiative bu caisse de dépôt ak consignation naka noonu ay partenaire am ñoŋal logement sociaux yi nekk mbëbët bu yitteel bu baax autorité yii lee daal tey jii kay bi nga xam ne koy joxe mun na am institution financière mun na ko bañ wóolu ma bëggoon nag ñu gaaw ñu gën a góorgóorlu pour que ñu defal leen seen i acte de vente ku nekk mun dem ci notaire bi ku pare fay ñu jox ko këyit buy tax ba bu ëllëgee bu soxlaa dem ci benn banque mu am këyit bu wóor bu soxlaa it ndax adduna noonu la demee jaay li mu moom wala jox koy keneen mu du am benn gàllankoor te loolu daf ci am solo ma ci ma ciy taxaw ma lay ñaax xam naa ni tamit loolu war na nekk sa yitte déjà mais euh, vraiment ñu bu am solo lool ci processus ngir xeex fii jafe-jafe mu soxal foncier fii ci Sénégal moo ne sax compagnie générale immobilière bu Sahel moo ngi ci programme am bu njëkk la toll ñi am ci succès commercial boo xamante ne jéggi na dayoo ba tax seen mbëbët nekk gën a def ay résultats. te loolu jàpp naa ni euh, ku gis lii nga xam ne nii moom lañ def ci biti. Euh, di nga xam ni méngoo na ak engagement yi mais li ñu def ci biti mais moom la ñuy bëgg continuer ci li nga xam ni moo des ci assiette bi moom la ñuy continuer ci yeneen assiette yi nga xam ne nii dinañ ko am te jàpp naa ni directeur général dinañu jàppale ci ambition d'un pôle résidentiel CDC continuer un peu pour acquérir de, du foncier ici directement ou par le biais de la CGIS pour que ñu am un aménagement structuré et durable. ak leen mbégte yi tamit di ko dund ba tax ñi koy la vraiment c'est tout. waaw daanaka lu am solo la ci ndaje mi nga xam ne ci la ñu bokk kon tamit euh, site bi am na loo xam ne daal lu am solo la ndax it euh, nekkul rek loo xam ne yomb na fi ci Sénégal ci jamono jile ndax ndox ak wàllum courant ak ay yoon ak euh, leenu jumtukaay ya ndax bu gisee ne kat situation jamono ji ak coowal suuf bi nga xam ne am na fii loolee sax du yomb waaye tamit dañuy daal di jaajëfal ñi nga xam ne mooy waa CGIS ak waa CDC. journée porte ouverte te ngir itam lancé commercialisation bu ñetteelu phase bi nga xamante ne nar nañ ko amal ci diiru at bi ñu nekk ak quatrième phase bu ñu sukkandikoo ci autorité yooyee